salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar ginnaaw bi ngeen seetaanee combat bi amoon dimanche ci diggante Franc ak Bébé Saloum ñu bëre Franc daan ko démb seetaan ngeen Bébé Saloum moom tamit mu wax li nga xamante ne noonu la gisee combat bi nan la bëree combat bi vainqueur bi moo ngi nii di Franc ñu fekk ko fi tamit moom muy entraîné dañuy nap wala lan la lan moo tax mu reprendre at wala dafa am lu mu soxla. moo tax booba léegi teguwul tànkam benn yoon mu toog ak coach Diawa comme ni ñu koy waxee chaque jour rek ni mu koy waxee chaque jour ni Franc rakkam la léppam la ndax yar bu nekk ci moom moo tax mu bëgg ko jàpp ko moo tax ñu fekk leen ñoom ñaar ñuy entraîné ànd ak tamit ak waa écurie di écurie bi xam nga sax nu mu tudd coach moom may wax xam naa affaire bi parce que anglais la dañ leen di nuyu bàyyi leen ñu nuyu ñuy suivre le tv point com ñu waxtaan ak moom waaye dañu commencé ci coach maa ngi lay waaw Lamine maa ngi lay nuyu di la fay du nuyu waa Sénégal du nuyu sama mbokku diaspora bi fu waay mën a nekk du nuyu sama xarit sama sëriñ sëñ Cheikhouna Mbacké bu sëñ Fallou donc yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wër sàmm ko sàmm ay di nuyu sama xarit sama sëñ sëñ sëñ bu sëñ Babacar Sy donc yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wër sàmm ko sàmm ay njabootam du nuyu kilifa diine yëpp nga xam ne ñu ngi Sénégal ak kilifa aada yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu waaw. comme ni ma la ko laajee woon rek avant combat bi bëggoo ci woon yaatal dafa am loo doon nëbbu walla lan woon. <coughs> waaw parce que euh, xam nga bébé Saloum tamit aussi dafa am ay mbokk donc euh, am na ñu koy ñu koy ñu ko dem ñaanal si combat bi. Mm. comprendre nga dafa am supporter aussi. donc comme dama dama far bugguma woon wax wax boo xam ne day day day day day takk daf koy blessé waaw day blessé quoi mhm. donc voilà mais euh, et puis xam nga sooy dem guerre doo doo doo wax lu ngay yóbbu da ngay bàyyi noonu rek quoi mhm. donc voilà mais euh, Franc la ñu war a félicité parce que moom mooy dugg moom moo nekkoon si géew bi mhm. donc moom moo bëree bëree bi yëpp donc vraiment di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan. may ko wër sàmm ko sàmm famille am tamit aussi. di ko jaale di ko jaale tamit tantam bu nga xam ne gaañ na si combat bi c'était pas évident. parce que stress boobu soo ko yóbboo si biir géew tamit loolu c'est pas c'est pas facile donc c'est un grand champion. ni mu bëree combat bi noo gisee. ni mu bëree combat bi mais noonu la woon noonu la woon parce que xamoon nañ bébé Saloum lan lay indi xamoon nañ ne tànk boobu lay jiital te loxo bi day jóg. su jógee bëre bi da kay da kay da moom. ñëwul woon pour xeex daal Franc. ah ñëwul woon pour xeex. non xeex bi ñëwoon na pour xeex sax mais bunt buntu bi lañ lañ dem wut quoi en fait. Mhm. parce que loolu je pense que liggéey nañ ko sax ah. ah liggéey nañ ko liggéey nañ ko ba mu ñëwee yàgguma fi nag quoi mais ba mu ñëwee liggéey nañ si. Mhm. donc ba vraiment noonu la waroon demee quoi di di encourager tamit bébé Saloum parce que. Euh, mbër la donc euh, vraiment euh, dafa dem jaay combat bi xam nga tamit aussi nga nga organiser nga ngay ngay bëre tamit il faut nga jaay sa combat donc dimbale tamit promoteur bi parce que promoteur bi tamit aussi si def daf si def xaalisam ah ndaw la donc nañ ko jàppale nit ku baax la nit ku yaru la jamaïcain nit ku am yitte la nit ku am coloré la donc voilà dañ ko war a jàppale xale bu baax la vraiment macha allah am na solo waaw dinañ ñëwaat ci yow ñu Franc maa lay nuyu Franc joxal ma ko micro bi. Lamine maa ngi lay fay di ziar mbokk internet yëpp di sant yàlla bu baax di sant Yeesu Krista di sant sumay mbokk ma mbokk njaago yi maa ngi leen di sant gis naa lu ñu daj ci combat bi suma mbokk séeréer yi aussi tam maa ngi sant bu baax a baax waa du si nuyu sama coach bu baax a baax coach Jama mu def déplacement jóge ba Paris ngir combat bi ñëw jàpp ci. aussi maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm moo xam lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defaral maa ngi maa ngi koy bàyyi yàlla suñu borom yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay. ok am na solo. ci combat bi laa lay laaj ko bëree. waaw Lamine combat bi lu ma gars yi préparé sama coach mu ngi nii ak coach su Laye Ñombor coach su Balla Diouf Yaram Guèye. Hmm. ma grand G. Hmm. coach su Suku aussi xam ma ak hmm. lu ñu ma xelal daal. loolu laa ñëw bëree ko waaw waaw léegi dama bëgg nga décortiquer combat bi ñu teg ko. Mhm. nga wax nii nga bëri arbitre sifflé na. Mhm. arbitre sifflé na lan nga def. waaw parce que arbitre dafa sifflé moom mu bëggoon ma dafa ma bëggoon aspiré quoi dafa ma bëggoon gëdd. léegi man ma wàcc ba tolloo ma wàcc ba gën ko féete maa ko féetee suuf sax. Mhm. ma wàcc ba gën a suufee moom instant bi du ko arrangé nag mooy woo ko ci wet bi di déplacé ak moom. léegi saa bu sàndee coup bi man boo xoolee damay arrière ñëwaat te su ma arrière ñëwaat bu moom bu rëppale waat man dinaa dinaa dóor mais jotoon ñu dóorante quoi. dañ doon balancement de sànnante loxo rek. Mhm. mais coup yi kenn dalul benn kuu dalul quoi. Mhm. après si lañ ay baaraam noonu ma loxo bi bëgg ko file léegi si lay bañ ma daw dóor ko ñaari naax baraake ko. Mhm. Euh, après si laa jàll ci ginnaawam quoi. ok war ko ndob. nga gën a gàtt. arbitre bi la nga wàcc lan moo tax. waaw si ma lan lan lan nga ko doon xañ. waaw gars yi ñoo ma ñoo ma préparé loolu ne ma njool la comme ak sa taay bi yàgg moom sa taay bi da koy jege. bu ko defee boo gë comme yaa ko gën a gàtt noonu fii boo gënee wàcc tamit du ko arrangé moom day métti ci moom quoi loolu ma gars yi wax. bi mhm. mhm. ngeen jàppante est-ce que sentir nga doole ci moom dëgg-dëgg. non moom champion la xam ma dafa ñëw ak état bu baax macha allah ñëw def na lépp lu mu war a def mais keroog man la yàlla àndal quoi. Mhm. mais doole bu ngeen jàppantee lan la nga sentir yaa ko ëpp doole wala. non moom am na doole am liggéey na liggéey naa mais loolu la yàlla eh, nam rek waaw yaa ma lu foofu daal nga ci mën a yem combat bi. Ah. Mhm. liggéey bi métti woon na. waaw métti woon na trop quoi parce que ñun liggéeyuñu pour ay benn combat bii nii rek parce que dañuy liggéey ci kanam parce que loolu la ma gars yi di yabe quoi en fait. Mhm. liggéeyuñu comme ay benn wala benn combat bu ñuy préparé après mu jeex ju soo ba ma paree lundi lañ commencé waat entraîner. Mhm. ñu gis ni tamit keroog mobilisé nga. luñ masul gis nga mobiliser ko maanaam doon nga andi mais keroog daf cee rawati lan moo tax loolu waaw man mii sax man sama jëm bopp daf maa jaaxal parce ma dalee bëre ba léegi lii maa ngi koy soog am parce que dama am na fu ma ko wax sax man maa ngi soog xam ne parcelle laa dëkk maanaam ñoom am na leneen luñ beneen bopp buñ ma joxaat xam nga sas nañ ma aussi mais loolu yëpp muy liggéeyu kii waa parcelle 100 pour cent mbooloo mooy doole bi xam nga mm-hmm. ñoom am na Moustapha ku ci mel ni Grand Mor Lamine Diack xam nga ku ci mel ni Goro taal ak ñëpp ñu ci nekk maa ngi leen di gërëm bu baax di ko di leen sant quoi aussi tamit suñu maam Père Ba loolu nga gisoon foofu yëpp moo ko def maa ngi koy ñaanal yàlla yaa moo xam lépp lu mu bëgg yàlla ko suñu borom defaral te yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kanam vraiment mobilisation bi moo jënd t moo t-shirt yi moo ko defar jënd billet yi lépp moo ko def. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man ko bi def ma ci dara dañ ma ne demal nga bëree ñëwaat. di nuyu njabootam bu baax famem suñu yaay. maman Ami Dramé xam nga ak sama yaay maam Fatou aussi ñoom may ba ñoom Mbène <coughs> ñoom Codé ñoom ñëpp ak yaayu Bamba aussi tamit ñoom ñëpp maa ngi lay nuyu waa gàll bi yëpp Mansour chéri Marème waaw maa ngi koy nuyu bu baax aussi tamit. Mm-hmm. moom tamit jàpp na si aussi quoi. Mm-hmm. am na solo bëri nga. Mm-hmm. daan nga fan nga jëm. waaw lamin xam nga yéen ay technicien ngeen ci làmb yéen yéen yéen kenn mënul wax làmb te kenn du leen wax xam nga yéen xam ngeen luy làmb da di wax rek ñun moom ñu ngi suñuy entraînement. Ah. xam nga lu ñu waxee kii nga war a bëreel par bu ñu toogee ñu waxtaan si amul problème. waaw mais yow am na ñoo bëgg a bëreel parce que seetaan naa la ci benn sende. non man ba léegi waxuma diw laa bëgg a bëreel wax la kii laa bëgg a bëreel. waaw waaw loolu Franc fan yee ci ginnaaw xale la woon mais Franc fu mu toll nii boo tourné gis ay ñoom coach si nga xam ne yaa quelque chose am na loo xam ne tamit liggéey la laaj. xam nga tey ji mën nga ne kii laa bëgg a bëreel te doo bëreeg moom mais buñ toogee am ñu ñu war a waxtaanal jël leen ci rukk man bu ñu wanee nee man pare naa. ñi nga bëgg a bëreel tamit xam nga ko wax a ma am na xam ne ma a bëreel. waaw ñi a bëreel a mooy loo mooy yoonu làmb mooy logique. muy ñan. comme dama lay mooy logique làmb mais du ma taxaw fii naan kii laa kii moo war a bëreel yi waxtaan ci buñ ci waxtaanee pare man bu ñu paree man pare naa. ah. marché Dior de démb jaar naa fa ñuy ñuy werante rek sa digganteeg rek la. waaw gars yi moom ñu koy wax quoi mais man xale laa làmb laa fi nekkal bu ñu waxtaanee suma staff bu ñu paree man pare naa. yéen ñoo koy wax. su sama staff bu ñu demee waxtaan moom bu ñu demee promoteur bu soxla combat bu foofu na jaar fu mu doon jaar xam na fu ñu war a jaar nañ jaar fu mu doon jaar du profité di nuyu à suma ménagère maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Parcelles Assainies bi yëpp ama 26 bàyyiwuma kenn. yaa ngi Reug làmb la. maag Reug Reug. ah xoolal rek. non man kay du maa xool yow yaay xool yow yaay bëre man kay xaw ma sax. Hmm, man de muy Reug champion la day bay waaram day liggéey muy beneen mbër ak xam nga képp koo xam ne bool nañu ñu war a bëri dañuy bëri parce que man mbër laa su ma toogee te bëriwu ma sama pertement la. mais est-ce que lamb leen. non loolu moom xanaa nga ko gars yi moom waaye man moom pare naa pour bëri mbër bu munti doon mbër bu ñu laaj bu ñu dem waxaale ne ko yaag Franc bu pare man pare naa ci logique rek man pare naa. Elton gis naa ko tamit journal sunu lamb tey yéen ñaar dañu affiché ci ginnaaw page waa xëy na seen choix lañ def mais instant yi man du ma naan damay laaj mbër bi wala damay laaj mbër bi xam nga may bàyyi gars yi ne kii la Franc war a bëreel xam nga buñ gars yi ne kii la laa war a bëreel buñ ko doxee buñ sama bu nangoo man pare naa. non Elton laa wax. Hmm? xam nga bi soo toogee rek naan sama sama sama sama staff sama staff. staff bi balaa ñuy jël combat. waaw dinañ ci waxtaan ak yow ni la loo ci wax. arrangé na la moo tax ma ma laaj la moo tax ma wax la ne la saa sama staff bu ñu paree man pare naa parce que ay nit mënoo leen jiital ngay liggéey ak ñoom pare ngay tourné fee. di leen faxasal di leen faxasal du ma ko def. dama leen déglu samay kilifa lañ dañoo bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw di ma jàppale di ma yokk seen xam-xam di ma yokk seen doole comme boog fu aw ma kenn ku dul ñoom dama leen di gërëm bu baax di leen sant laaj joxal ma ko su ma laaj ko ma xam Franc man naa daan mën naa daan rëg-rëg ak fi mu jaar ak moom ci mbapat yëpp ak rëg-rëg ñi fi të ci bëre door bi yëpp mu daan leen ba instant bi gars yi ñemewuñu koo jël est-ce que Franc bi mën na koo daan. waaw ah, loolu combat la. ah combat ne ñor na est-ce que. ñor na. waa promoteur yi nañ ko bàyyi si loxo promoteur yi rek. rek du ñeexu ñebe de. non promoteur yi moom xam nañ comme Franc ni ko waxee rek xam nañ fi ñuy jaar donc su demee ba jaar fi ñu waxtaan bu juboo donc loolu combat la mais rek nag da ñebe looloo ma ci jaaxal dafa yombul daan. mais athlète rek comme Franc lu mu nekkee athlète parce que xam nga mu ngi entraîné yàgg na entrainement yàgg nañ si mbapat donc euh, bëre dóor bi nag beneen affaire la. parce que il faut nga calculer ki xeex bi. te vraiment bëre dóor daal du bëre simple. ah bëre dóor du bëre simple. c'est ça. Reug Reug tontu yow tontu ma ci loolu mën ngaa daan Reug Reug laa la laaj ba xam mën nga koo daan ci bëre dóor bi. man man amul ku ma mënul daan ci làmb. ba ci Reug Reug. amul ku ma mënul daan ci làmb góor bu xasee ba mot 90 kilos sàqamtuma moom may posé 100 kilos ak lu teg man amul ku ma mënul daan ci làmb. ah dafa toj bëre simple bi de bëre dóor bi mu ñëw am problème mu adversaire. waaw loolu yëpp nangul nañ ko. ma nga ci MMA ba instant bi waaw loolu yëpp nangul nañ ko ko parce que. fii loo war a def en fait da koy def yàlla bind na ko loolu la war a def comme ran nga ñun nag ay mbër lañu ay sportif lañu aussi dañuy ñu dem appli ko ñëwaat loolu kese la. Mhm. mais pare nga pour combat boobu. képp kuñ ma mënti jox. du ma pare nga pour moom da ngay foog ne benn mbër man maa moom yow yaa waxoo de. man baax pare nga pour bëre ak képp kuñ ma mënti jox pare naa pour moom képp kuñ ma mënti jox muy mbër. daa mel ni bëgg nga combat boobu nag. Lamine képp kuñ ma mënti jox bu logique. bu liggéey ñu jaar fu ñu war a jaar man pare naa làmb laa fi nekkal damay liggéey dama bëgg a dimbali sama yaay ak sama papa ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi sama ginaaw dama leen bëgg a jàppale. Hmm. képp koo xam ne dox nañ ko ñu juboo ñu jaar fu ñu war a jaar man damay bëre je suis pare. digganteem ak Malick Niang nag. boobu combat la. kooku moom day xeex moom. kooku moom laaj na waajal bu baax a baax. ah. combat boobu moom laaj na waajal bu baax a baax ndax. xeex kan mais mais naa ko si xeex. ba ci xeex ak Malick Niang. Franc no xeexagul sax xaaral bis kanam na combat bu taxaw rek. moom Malick Niang bu taxawee dina xeex. non dañuy xeex day xeex ak moom. Hmm. waaw. woolu nga ko ci daal. ah wóolu nga ko ci. non dam ko dama ko wóolu. moog Elton bi ñu bi ñu affiché tey nag. moog Elton ah mais xam nga dafa am benn plan de carrière boo xam ne Franc war na ko topp quoi donc su promoteur yi. promoteurs yi suñu suñu buggee combat xam nañ fu ñuy jaar comme Franc nu ko nu mu ko waxee rek waaw voilà dafa am benn plan de carrière boo xam ne si la toll ah donc euh, am na kattan bi am na doole bi mun na bëre bi mun na xeex bi tamit parce que ñu bëri ñu ngi xo ñu ngi ñu ngi wax ne Franc xeex bi des na mais man mi ko yore xam naa ne xeex bi xeex bi mu ngi mu ngi moom puissance de frappe bi mu ngi moom hmm. te ku mu dóor mun na mun na la wàcce hmm. donc waaw kon moom Malick Niang dóor mu wàcc mën na ko jeex. non mais non day day xeex ak day bu dee combat boobu taxaw na non day xeex. boobu daa mel ne ci ngeen gën a sawar de. ah boobu sawar ngeen ci de. waa mais combat la rek xam nga comme ni ko Franc waxee rek xam nga doo ñëw fii di di lim ne kila laa bëgg kila kii laa mais promoteur yi suñu buggee combat xam nañ fu ñuy jaar su ko defee ñu wax ak euh, staff staffu Franc. staff bi yëpp ñu ñu waxtaan quoi di di di remercier aussi euh, équipe euh, équipe Franc bi ñoom laay Ah, coach si nekk laay ñombar coach si yëpp nekk fii at at lutteurs yi fi nekk ñëpp ñoo xam ne accompagné nañu ko woon vraiment di leen wax merci beaucoup et puis euh, di leen ñaanal yàlla rek yàlla may leen gudd fan may leen wër yàlla sàmm leen bu baax a baax mbër yi nga xam ne ñu ngi fi di ànd ak su ñu amee combat yàlla na yàlla may. ok am euh, loo wax ci ci Malick Niang yow. waaw Lamine li ma la waxoon rek laay waxaat. fu mu toll nii moom xam nga nit ku ne moom doo ñaan yàlla taxaw benn étape xam nga tey tey suñ bu ñu compté un deux trois tey damay ñaan yàlla xam na leneen lu ci ay quatre cinq yooyu ñu mottali ko comprendre nga parce que adduna lépp looy looy looy dugg rek da nga ñaan avance avancement te fu mu toll nii damay sant yàlla bu baax bu ma tourné sama ginnaaw gis su mel ni coach ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguñu ku leen tudd. waaw xam nga. waaw mais Malick Niang laa la wax Malick Niang. waaw moom tamit champion la. waaw xam la mais képp koo xam ne li ma la waxoon foofu fee rek laa lay waxaat du ma fi nekk fii naan la fi mbër bi ak nii non képp ku ñu dem waxtaan ak bi buñ dàquree man pare naa man làmb laa fi nekk man liggéey laay def. man bëre rek laay def. ni ñu werantee nag noonu ni ñu werantee. Mhm. démb marché jot. Mhm. noonu la ñu werantee ci groupe Fallou Ndiaye bi. Mhm. dégg naa ñoom am na Moustapha di werante nag. am na ku ni foofu wax démb sa combat jam téeri foofu. loo wax ci combat boobu nee nañ tolloo ngeen. ñaari ndaama ngeen seen combat dina métti dina neex. waa xam nga Diam Terry moom champion la xam nga ba moom maam moom suñu combat doon nañ ko dox bu yàgg comprendre nga mais moom ci moom après mu ne pare na stade lañ daje di dëkkonte sax mu ne pare na après mu ñëwaat ba si mais nee na kiiwul mais stade moom na nekk ci leneen ma nekk ci leneen quoi. ah Diam Terry mu mujjee daan jëli. non waaw champion la déggoo li ma la wax la mais fu mu toll nii man ni ma war a bëree yéen ñëpp xam ngeen ko du ma fi nekk nag di lim benn mbër. mais lamit képp koo xam ne dinañ waxtaan ak sama staff ba gars yi d'accord man pare naa. bëggoo jam téere ah bëggoo jam non jam téere baaxu mu xooli feneen quoi ma xooli feneen. yaa ko raw. ah non raw ma ko de. ma kenn ci làmb moo ma raw waaw moo ma raw. ah mais kon kay jël ko. waaw yéen ñaar kay bu ngeen bu ñu leen tëjee arène nationale bee dina neex. waaw dinaa ko jël amul benn problème mais fu mu toll nii Lamine man lu ma gën a diis gën a ngand. gën ma ah, arrangé yow lu diis nga bëgg. lu diis ngand toll nu ko neex. gën ma arrangé parce fu mu toll nii bu ma tourné gis sama ginnaaw coach Jabon grand coach Balla Diouf xam ma coach Laay Ñombar coach Lato Lamine tamit ah. góor di dugg ci àll bi. <laughs> waaw góor soog di dugg ci àll bi góor béy mi ah. góor béy di dem génne di ñëwaat. waaw ak maam père ba jox ma ay butéel yu bari. <laughs> père ba kay mystique wax ci dara xanaa. ok am na solo. léegi li ma lay laaj mooy combat bi. démb tamit gis nañ ci journal sur laamu. Mhm. waa parcelle mbooloo. Mhm. di wax ni combat bi waajalu woo ko fa. Mhm. lan moo tax loolu. waa dëgg la waajulu ma ko fi quoi parce que ku dee ku dee sa bàmmeel xam ni te nit moom dëgg rek ngay wax man moom dëgg rek laay wax mhm. xam nga la parce que en fait dama jàpp ni parcelle bi yëpp benn la ñun benn la ñun ñoo bokk fu ñuy préparé xam nga lato lato day ñëw écrit yi parcelle mbo di ñu entraîné te lato mhm. nekkul foofu mhm. xam nga comme man tamit damay dem rek énergie damay dem feneen ak feneen parcelle bi yëpp benn la quoi waaw dafa lu ma soxloon ci combat rek xam ma après ma dem ñëw ci écrit jàmbaar bi xam ma mooy loolu ñoom tamit ñu taxaw ma bu baax jàppale ma aussi tamit quoi. mais est-ce que loolu tamit yoon la. waaw mais après ay waxtaan la rek quoi mais incha allah dinañ trouver hmm. ñëpp xamante nañu on est ensemble. Hmm. yow daal yaa ngi yaa ngi yaa ngi jégalu loolu. waaw maa ngi tubb wér semaine prochaine nga reprendre ak parcelle mbooloo. Hmm. wala da ngay bàyyi ba combat Papa Sow bi passé. waaw mun ngaa dem parcelle mbooloo di ñëw léeg-léeg Papa Sow ma jël ko yóbbu ko parcelle mbooloo ñu dem contact yi foofu. parcelle bi yëpp benn la ñun ñëpp on ensemble. waaw léeg ñu dem sax dóor dóoraat garga dëgg yi foofu xam nga ñu dem contact góor a soog a ngi foofu tamit ñu dem contact. ñoom ñun ñëpp ñoo far. loolu loolu am na solo. démb xëy na gis ren làmb tamit ñu affiché arbitre bi. sa gars yi ñoom Malick Ngom. Mm-hmm. ñii ñu aj leen cinq ans. Mm-hmm. ñii ñu raje leen. Mm-hmm. noo gisee loolu. waaw xam nga làmb moom mooy li may wax rek làmb ak coow ñoo ànd mais foog gars yi wóotewaat muy muy muy muy mbër muy arbitre wa ak membre CNG bi yëpp ñu toog waxtaan lamin réeroo amul de ñax manque de communication moo am. Mm-hmm. bu ñu defee loolu incha allah defe naa yàlla dina ci def jàmm parce que mbooloo mooy doole en fait te ñu làmb rek la am léegi kii bu jaaree ne kii bëgg a jaar ne Lamine duñ kañ la jiboo fii ba ginnaawaat suba duñ jubóo nañu booloo boole xool yi xam nga suñu espoir bi mën a avancer dem. Mhm. loolu kasa la. ñàkk ñàkk ñuy jiite jiite ñuy topp ci ginnaaw topp ci ginnaaw. Mhm. loolu kasa la. ñàkk jubóo bi est-ce que bokkul ci li tardé làmb instant bi. moom la loolu kasa la de fi dégg ay ñaari association ci làmb. Mhm. loolu du yoon. xanaa ñeneen ka la ñuy xeexal kan ñoom rek ñooy xeex seen biir mais nañu waxtaan bu ñu waxtaanee xëy yàlla sa yàlla moo wax loolu saa boo leen boolee juboo ma ma wàccee xéwal bi ngeen ñëpp dem seen yoon loolu la. sànq gisoo damaa tëb sax benn adversaire boo xam ne Jamaïcain bëgg na ko. Mhm. loolu moom jama ko bëgg. Mhm. xam nga woo na la xam nga woogu la Jordan. Jordan sa digganteeg Jordan. Lamine bëgg na combat boobu lu diis rek ngay bëgg moom. lu diis a ngoog. Lamine lu gars waxtaan rek xam man moom mooy li ma la wax rek du ma jiital ay ñebe par di leen faxasal fu mu toll nii ku soxla sama combat xam na fu mu doon jaar na fa jaaraat. Hmm. man maa ngi samay entraînement. am ba ma bëree dimanche lundi fii la ma fekk. ba commencé waat maa ak képp ku mu munti doon nag bu ñu waxtaanee ba juboo man pare naa liggéey la. lan moo tax noppalu woo tamit. ñàkk noppalu bi coach yow laa koy waaw nekkoon ci ay entraînement yu jeex nga reprendre. lundi ba est que loolu tamit yoon la yoon la. yoon la yoon la parce que xam nga le lendemain da nga nekk dafa dafa bëre bëre daan donc le lendemain xam nga at supporters yi ak yooyu. donc après le lendemain da ngay ñëw def quelques séances rek quoi d'étirement relaxation xam nga donc euh, loolu. moom intense quoi waaw waaw voilà bu léger la quoi def ay étirement génnewaat kii bi quoi euh, pression bi ngeen xam ne nekkoon na si làmb bi quoi affaire yooyu yëpp quoi donc euh, day day ñëw changer changé changer air tuuti un petit peu quoi. ok am na solo loolu rek loolu rek la quoi. coow bi ci làmb bi. arbitre yëpp dàq nañ leen. arbitre yi. dàq nañ ñëpp. waaw mais. Euh, waxtaan ñàkk waxtaan xam nga donc parce que ñoom ñoom ñoom ñëpp am na ñoo xam ne euh, c'est des pères de famille donc euh, heureusement xëy na am na ñu xam ne am nañ si seen métier am na ñoo xam ne tamit aussi loolu lañu moom la loolu mooy seen métier ça fait des années ñu nekk si donc nga jékki-jékki le lendemain nga dàq leen tamit loolu day dafa dafa métti parce que da ngay bul xalaat nit ki kese mais xalaatal ñu mu uuf seen gannaaw donc euh, dañu am ay yaay dañu am papa dañu am ay doom dañu am jabar donc loolu yëpp war nañ ko seetaat parce que ñoom dañu war a xool dañu war a nekk ci place arbitre aussi te suñu leen ko defoon tey du du dina métti trop si ñoom donc nañu waxtaanaat nañu waat gars yëpp xam nga donc ça fait des années ñuy liggéey ensemble donc nañu toog waxtaanaat waxtaan. donc euh, moo gën moo moo gën quoi xuloo xuloo amul benn njëriñ waaw xam nga donc euh, sëñ Cheikh daana wax ne euh, doole doole tooñ du doole tooñ du doole mais nañ nañ waxtaanaat rek waaw di waat pa pa suñu papa Alioune mu woowaat gars yi toog si benn table ñu toog ñu waxtaan donc suñu waxtaanee rek incha allah xam naa nañ nañ nañ dinañ am solution quoi waaw waaw. joxal ma Franc Franc Franc bala ngay tàggatoo. combat am na dimanche. Mhm. Sokh Gamou Gueye. noo gisee combat boobu ak looy xaar ci ñaari mbëri. waaw ñaari champion la xam nga soq ndaanaan la Gamou Gueye aussi tamit ndaanaan la dinañ bëre bu làmb ju neex incha allah làmb ju neex dinañ ko bëre. parce que ñoom ñaar ñëpp xam nga bu ñëwee ci géew dañuy joxe lépp lu ñu am quoi dañuy joxe maximum. Mhm. xam tey ay xale lañu aussi. bu ñu bëree daal dina neex quoi. fooru ñaari mbëri lan la pour yow ku ci nekk sa foor lan la. waaw ah, kii Gamou Gueye moom day xeex day xeex te day bëre aussi. Hmm. soq tamit la même chose ah. léegi lan moo tax kenn mënatul analyser combat. Hmm? bu ñu leen laajee pour ngeen analyser combat lan mooy problème bi du ngeen ko du ngeen ko toj ni ngeen ko war a tojee. li ma la ci wax nii da nga koo xeeb moo doon bëree soq looy moti si moom. moo doon bëree. soq lan nga koy xañ. su ma man su ma doon bëree soq lu ma koy xañ waaw ah, soq moom xam nga dafa am poids moom xam nga da ngay bañ mu mu mu jàpp ñaari loxo yëpp loolu la rek. kon gàmm gi loolu la war a moytu ci moom. <laughs> Lamine bàyyi li ngay def. gàmm gi lan gàmmu gay tamit day bëre day xeex te day attaqué quoi. day attaqué mais soq même soq aussi tam day attaqué. Hmm. comprendre nga mais bu ñu bëree daal day ñu bëre combat bu neex Lamine. am na solo looy tàggatoo. waaw naa di gërëm waa parcelle yëpp 1 ba di gërëm waa Joal Fadiouth. xam nga ku ci mel ni Jean Ñilaan ak Aziz waa Njong yëpp maa ngi leen di gërëm waaw maa ngi leen nuyu baax baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Edouard dim la jox comprendre nga moo ñëwee foofu damay nuyu waa Diouroup xam nga ak waa Fayako waa di nuyu waa Fatick aussi tamit ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi quoi waaw di nuyu ku ci mel ni Maam Ba Lamine kooku foog ma nuyu ko sant ko bu baax gërëm ko parce que dafa jàpp ci combat bi xam nga waaw mais xam naa dina ko jàppale quoi incha allah amul benn problème <laughs> di nuy aussi tamit sama waa koñ maa leen jégalu bu wér surtout sama waa gaale maa leen jégalu parce sama tante dafa wàcc xam nga démb sax lañ ko denc xam nga maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ko ko quoi ak ñëpp ngoo xam ne waaw suñu borom jël na leen rek ñu ñaanal leen waaw yàlla yërëm leen te xaale na àjjana waaw di nuyuwaat encore aussi waa Parcelles Assainies bu baax di nuyu sama mère koñ yi Eva Sok maa ngi koy nuyu aw Ndiaye jàpp na ci combat bi grand Tafa Kane bu mu mouvement Parcelles Assainies bi maa ngi koy nuyu aussi bu baax grand Babacar Gueye maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu <laughs> sama sœur yi nekk Paris aussi maa ngi nuyu bu baax ku ci mel ni grand Khalifa Sankare borom Belgique Amadou Fall borom Espagne maa ngi koy nuyu bu baax baax waaw di nuyu aussi tamit tamit attends ñu jàpp ci combat dafa bëri quoi. waaw Moussa la maire Moussa Sy waaw maire bu Parcelles Assainies maa ngi koy nuyu jàpp na ci grand Cheikh Wilkon maa ngi koy nuyu bu baax jàpp na ci Yves Ndiago Or maa ngi koy nuyu aussi tamit jàpp na ci ak waa Unité waa Parcelles sama mbokku Ndiago yëpp waa Grand Yoff aussi tamit sama maire koñ yi waaw ak sama booy tamit tout tànk ñoom ñëpp maa nuyu. grand Mor maa ngi koy nuyu Laurent ñoom Zo ak laay sama président fans club bi. di nuyu aussi tamit Mara su may bëre moom mooy yóbbu ci otoom ak sëñ Saliou waaw maa ngi nuyu bu wér a wér. Modou lu mu la waxoon ci combat bi. kan Modou. waaw ah. ah, dafa may dama jàpp daan rek. loolu la ma waxoon quoi. waa ji nee na Dóor waa Mbale. waa ah, waa jël naa nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo kaana aussi tamit. ak Batika. waa ak Batika ah waaw di nuyu sama booy nekk nga xam ma booy yi nga xam ne ñoo yor cumbukaay muy ku si maa ngi koy nuyu baax ak Père boole Modou njaay waaw Modou Jox. ak waa Pro Auto. <laughs> waaw Pro Auto maa ngi koy nuy Ibou Laye jàpp na ci combat bi baax a baax maa ngi koy nuyu aussi tamit sama benn boy tamit moo ma jox oto bi muy Moustapha waaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ziar bu wér. dégg naa ci yow jàpp na ci. ak laay ñombar gaa yëpp waa aussi tamit jàpp nañ ci quoi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. aywa coach su may maa lay remercier encore si ce déplacement bi donc euh, di gërëm Franc donc euh, muy comme nu mu la ko waxee rek muy booy bu yaru ah booy bu am coloré booy bu am yar ah ku ñàkk ki ñaan quoi donc vraiment donc euh, tey Lamine lu mu la ma ko waxee rek indiscipline baaxul si biir réew waaw discipline comme ni koy waxee rek discipline si sa bopp ko koy njëkkee donc soo ko defee rek dëkk bi dëkk bi dox waaw donc di ñaanal waa Sénégal di ñaanal sama mbokk diaspora bi donc di ñaanal sama sama famille famille Diabon ah donc euh, di ñaanal ñëpp di nuyu sama groupe WhatsApp euh, ami d'enfance Mermoz donc di nuyu waa Daaru Musti aussi donc euh, di waajal saraxal sama yaay rek ah ne ñëpp ñaanal donc euh, di nuyu euh, du du di nuyu ñëpp daal di nuy ñëpp fàttewuma kenn du nuyu famille Ndiaye donc sama maam maa ngi koy gërëm di sant donc euh, di nuyu famille di nuyu ñëpp daal di nuyu ñëpp quoi maa ngi ziar ñëpp quoi. Lamine. waaw di nuyu fi ma fàtte du nuy Khalifa Sankaré borom borom Belgique. Ah? de nu mu koy nu mu koy waxee sax. Hmm? Galsen du ay fon mais Lamine ah, damay nuyu sëñ Issa Touré aussi tamit jàpp na ci combat bi baax baax mm-hmm. ak sama benn booy bu nekk Grand Yoff ñu koy wax moom tamit xam nga def na déplacement ñëw quoi maa ngi koy bëggee Assane Kapo borom marché Grand Yoff André King waaw King bi waaw maa ngi koy nuyu baax André Senghor di nuyu aussi tamit baaba taal xam nga sama booy la muy États-Unis quoi ak Max aussi tamit Max Lodja moom ñu ngi ba New York maa ngi leen di gërëm bu sama benn njaatige bu nekk Washington quoi moom bëggul koy tudd turam waaw moom xam na lépp quoi di nuyu parcelle 1 ba 26 ñëpp maa ngi leen mais di nuyu waa waa waa parcelle yëpp ah donc 1 euh, ba 26 waaw 1 ba 26 waaw di ziar ñëpp daal waaw waaw waaw gis nga di nuyu sama sœur bi nga xam ne mu ngi dëkk fii unité 10 donc euh, di nuyu ñëpp Henri Camara tamit aussi. jàpp na si combat bi quoi sama frère <laughs> il faut ñu dem fa waaw H. waaw ñëw léegi H dégg et puis di gërëm aussi euh, l' international lay Diagne waaw borom borom baax la donc euh, nit ku yaru la nit ku gëm boppam la nit ku am yitte vraiment donc lu ma bugg rek yëpp mu ngi siy dox daal waaw vraiment du nuyu nag waa équipe nationale du Sénégal donc. Euh, waaw Yékini junior at Ousmane ah waaw États-Unis tamit ñu ngi leen. Yékini junior Papa Ndiaye. waaw waaw di nuyu Papa Ndiaye aussi. waaw <laughs> Papa Sow Siteu. waaw Papa bu neex la. Mhm. lan moo koy neexal. com combat bi lu koy neexal. Papa Sow daa am ci lu mu jugee Siteu aussi tam am ci lu mu jugee. Papa Sow dafa teg la ñaari défaite Siteu teg benn defet comprendre nga Papa Sow war war a ñëw taxaw fu mu war a taxawaat. Siteu tamit ne du Siteu tamit ne day taxaw fu mu war a taxawaat te Siteu tamit nee na Papa Sow mag la comprendre nga te Papa Sow tamit nee na booy bi daa am lu mu koy jaay xam la nga xam ne combat du yomb mais incha allah Papa Sow dina ko duma dina ko daan. Papa Sow dina duma Siteu. dina duma Siteu dina ko daan. foo teg loolu. <laughs> ci lu muy liggéey laa ko teg rek. yéen dafa mel ni dossier Siteu da ngeen koo da ngeen koo lijjanti ba pare. waaw non xam nga Papa Sow champion la. géew bu ne dugg na fa. combat combat mënul gën a rëy. Papa Sow Ama Baldé ci carrière xam nga mu ñëw gérer ko ba yàlla may ko lu mu ko ci may xam nga mais Siteu jaaxul Papa Sow champion la nag quoi def na lu mu war a def def na ay problème mais bés baa war bi sifflé di nga xam ne jaaxalu ko. Siteu ndaanaan la de. moo moo tax bërëb di gën a neex sax ci ndaanaan boobu ñu nekk noonu moo tax bërëb bi di gën a neex. fit bi rëy na de. moo tax bërëb di gën a yomb aussi tamit. fit bi rëy na de. waaw baax na ba bës ba. ñu ko gis muy arrière tamit. musoo ko gis. muy arrière. muy arrière. waaw waaw bés ba. su bis ba dama koy gis wala lan. <laughs> bés ba bu ñëwee dina arrière de waaw. su arrière lu ko ciy fekk. waaw ah. si lu mu def daanu boo bëggee dégg-dégg lu mu def daanu paaso da koy daan incha allah bu neexee yàlla. Hmm. Mhm. kon baax na ba ba ba le 5. rendez ju wax ñëpp ñu ñaanal Papa yàlla may ko ndam sama mbokk ñëpp ñu may jàppale ñu ñaanal Papa yàlla may ko ndam. jaajëf